waaw fii ngeen fekk fi ngeen ñu fekk nii mooy quartier Colobane Nord Est quartier Colobane Nord Est nag dafa bénéficier aussi benn programme boo xam ne collectif bi moo ko doon def à travers euh, le CODEL CGM ñu commencé woon euh, assenissement dans les quartiers de Colobane Gouye Mouride pour un début ñu commencé woon ci quatre quartiers yi quatre quartiers yi nag ñun ñu bokk si moo tax euh, fi mu toll nii dugal nañ tuyaux yi ba pare ñu ngi ci deuxième phase bi mooy installer kii bi regard yi ba dugal ko ci kër yi. donc nak lool amna solo top te buñ ko réussir en grande partie soko si mo def ben appui bo xamné 8 millions 300 000 en matériel lool mo ñu dimbali que ñu man ko réaliser du koñ bi liñu dund mom bari won na torop ndax fi lan feddal ak ndox ñu sonu lool nak diwal guddi diwal beccëk suñu neeg yeek suñu kër yeek suñu mbéd yi lepp di fess kenn mënu won genn ñu ma saani togg mba euh, liggéey do am foy tek sé bagage do am fa né soko sim ñëw na contane nañ ci mom torop nak sant yàlla bu baax di ko sant ndax itam li mu defal nii kontaan nañ ci lool kan soo euh, suñu xol sedd na guyi ndax lii ñu defal nii daanaka bi dugg ci biir kër yi moo des defal na yëpp ci mbedd mi yëpp ñëw na amul ñu benn problème wax dëgg yàlla kontaan nañ ci moom bu baax a baax a baax sant nañ bu baax gërëm nañu leen ñu jafe-jafe ji yeex na amatuñu benn jaaxle ndox amatuñu benn lu ñuy xalaat. bi biñ ko réaliser ba pare nag am na impact bu baax a baax a baax ci population yi parce que aussi euh, dañu amoon ay problème inondation te ndox yi ndox surtout les eaux usées là dañu amoon problème mu génne ko ci kër yi depuis bi biñ ko defeek léegi nag wax dëgg neex yàlla ñu ngi sentir euh, évolution bu baax a baax a baax yàlla mu ngi ciy def jàmm pareegul nag xam naa bu pare population yi dinañ ci gën a gis seen bopp mais fi mu toll nii daal euh, c'est soulageant. te ñun ñi jigéen ñi tamit amoon nañ jafe parce que chaque jour dañ ay ndox. di indi problème ay coow fii parce que si buntu kër yi la alañ daan tuur di fi tuur ndox di xuloo diggante kër yi kër yi su masaana taw nii pour ndox pour nga bënnaat kër nit dugal fa dugal fa sa ndox mu ñëw rek da daan indi ay jafe-jafe te yooyu yëpp yàlla def na jàngoro ji ñoom wax dëgg yàlla moom saafarawu na wax dëgg yàlla ndaxte sonnoon nañ torop koñ bi moom wax dëgg yàlla sonnoñ fii nii su masaana taw doo fi taxaw parce que ndox yëpp da daan génn ci biir kër yi di ñëw mais léegi yooyu yëpp saafarawu na à cause de euh, kii bi ñu fi indi Sococim lii mu ñu indil nii assainissement euh, tiwo yi bon nag ñoo ngi sant Sococim bu baax macha allah sugu sim ca kaw ca kanam xale yi fi ñëw tam macha allah di ko gas ak a defar santaan nañ ci ñoom sant nañu ñëpp sugu sim moom macha allah ca kaw ca kanam.